Assalamualaikum mbokki Senegal. ñoo ngi fas yéene seq ak yéen seqat ak yéen waxtaan gu gàtt fas yéene ko jagleel li nga xam ne mooy coow ci réew mi muy li rapport Cour des comptes fësal ci yorin gu ñaawa ñaawa ñaaw goo xam yore nañ ko alalu réew mi ci pàcc boo xam ne xel waruluta mun warutaloon mun xalaat ni nit dina am sañ-sañ boobu ndax li waroon alal googu may fàttali sénégalais yi ni dañ ñoo waxoon ni dafa am ab noon gu song réew mi noon gu bari doole noon gu soxora a soxor noon gu ñàkk yërmande noon gu am doole am kàttan ci wàññi nit ci jëmmam waaye noon gu am doole ci faat bakkan te ci yërmande ñun ñëpp ñu àndandoo ne loolu nag dafa jaar ñu mànkoo taxaw jàkkaarloog noonu googu looloo tax lu ñu lu nga xam ne duñ ko nangul luddul dul ci cas yo xamné ne cas yu exceptionnel la lolou lañu nanguloon président la république moy ben askan wi yépp nangul ko ñu jël lu mat junni ci ay milliards wax ben benn milliard wax ma juróom milliard wax ma téeméeri milliard waye junni ci ay milliards ñu tek ko ci loxom 1000 milliards nangulat ko ne ko milliards yoyu du jaar sax ci procédure yi dafa wara nga wara préparer yonne ko assemblée commission daje après ñu yobbu ko plénière ñu wote ñu ne loolu yëpp dafa yéex kon nañ ko def ci anam goo xam ne moom day jël ay ordonnance rek ne junniy milliards yi milliar nangami milliards dugal naa ko fii nangam milliards dugal naa ko fii nangam milliards dugal naa ko fële loolu nga xam ne bu réew nekkee ci guerre rek lañ koy nangul euh, président de la république bii ñu nangul ko ko may fàttalit ni lañ lañu ñu diggoon Sénégal mooy mooy junni milliards yooyu ñeenti jubluwaay lañ ci jublu bu ci njëkk mooy nañu fexe ba système santé bi ñun ñëpp xam nañ ni Sénégal suñu système santé dafa sooxe poste de santé yi doyul hôpitaux yi doyul paj mi sooxe na nit ñaa ngi dee ci couloir hôpitaux yi nit ñi sonn nañu ñu ne kon nañu fexe ba comme lii yee nañu te àdduna jaxasoo na mille milliards yi nañu fexe ba buñ ci jógee suñu système santé gën a taxaw ñaareel bi nga xam ne moom la ñu waxoon mu lu ñu tuddee résilience sociale mooy comme feebar bi am na te Sénégal dafa bëri néew du doo ñuy fàttali ni ci ñaar fukk ak juróomi réew yi gën a ndóol ci àdduna ci lañ ñu boole kon dina bëri ñoo xam ne seen mën-mën comme mënatuñu liggéey ni ñu daan liggéey lañ daan fortaatu di dundantu sax mënatuñu ko am ñu ne kon ñooñu dañ leen ci jàppale muy résilience sociale ñetteel bi mooy stabilité économique pexe ba koom-koomu réew mi du nërmeelu ñeenteel bi mooy li ñuy tuddee fexe ba li nga xamné mënul ñak ci réew muy hydrocarbure lepp lu jëm ci pétrole ak gaz wala muy ci garab bu ñuy fajo wala muy li ñu gëna soxla ci li ñuy dundee mu baña am rupture mu ñu fexé ba du ñu ne loolu na ci réew mi lolu taxone sénégalais yépp man ak yow may sétan ak kenen ak kenen ñu nangul Macky Sall jox ko lu toll ni 1000 milliards lu bokkul ak budget Sénégal waaye yemuñu ci lolu ñu jox ko sañ-sañ ndax mille milliards yi naka la naka la naka lañ koo amee 1000 milliards yi téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk ak ñeent yi pour cent partenaire technique et financier lañ ko dem utee ji mooy dañ koo leb mooy man ak yow ak suñu doom ak suñu sët da koy fay lu ñu leb la dañ koy fay di ko fay fii ak ay ati at dañ koy fay ci turu Sénégal la ko lebe ci turu citoyen sénégalais yi ñu ne am na ci téeméer boo jël fukk ak ñett treize pour cent yoo xam ne sénégal yi ñooy góor góorlu génne ko seen poos mooy impôt gi ñuy fay moo a dem ci budget bi kon boo boolee boobu ak bor bi yépp day dellu si ci citoyen bi ñun ñoo koy fay bii da nga koy fay tout de suite bii dañ la ko lebal nga koy fay ci ay année mu ànd ak intérêt ñu ne ñetteelu pàcc bi muy deux virgule cinq pour cent téeméer boo jël ñaar ak genn wàll gi ñu ne citoyen sénégalais yi ñi nga xam ne ay bon volonté la ñooy yëkkati seen alal ne mii jox naa sama contribution gis nañ fi ay kilifa diine yu joxe xaalis bu dul jeex ay dizaine de millions gis nañ fi ay chef d'entreprise yu jël xaalis bu dul jeex joxe yërmande bi ñu am ci réew mi ak ci askan bi moo taxoon waa mbokk yi est-ce que jaadu na tey ñu ne xaalis boobu gaa yi dañ koo randal randal ko ci ñeenti anamit la cour des comptes dafa ne non respect des procédures mooy ni ñu ne xaalis foofu la wara jaar pour guen respecter wuñu ko gis nañ fi sax ño xamné ne jël xaalis bi dem duggal ko ci benn compte am sen nit bo xamné semaine bu ne mu dem retirer 100 millions lu jaarul ci chèque lu jaarul ci décaissement état loolu lu graw a la ñaareel bi nga xamné amna moy li ñuy wax surfacturation waaye yow jamono bu nit ñi feebar bay sukuraat ñaata nit a ñàkk seen bakkan ci mbir mi. yow nga ne lii il faut ma lekk ci xaalis gaa bu doon jar cent nga ne dinaa ko jëndee deux cent piqûre bu doon jar cent nga ne dinaa ko jëndee trois cent kilo ceeb bu doon jar euh, cent nga dinaa ko jëndee cent quinze waa ana yërmande nit de am na loo xam ne boo ko defee ci jamono du dara amul sax lu garaaw a garaaw la waxuma laa nag jamono bu ñu ne dañoo nekk ci guerre ay nit di sukuraat ay nit seen liggéey yàqu si yow nga am sañ-sañu ne tey laa ci profité pour am samay milliards man ñetteel bi mooy exécution de dépense sans rapport avec Covid mooy am na loo xam ne def nañ ko ci amul benn rapport ak Covid 19 ñeenteel bi mooy défaut de pièce justificative nee nga dépensé nga nangam million wala nangam milliard ñu ne la andil li koy firndeel ci ay facture rek nangam nag nga ne amoo facture amoo lenn lu ko mën a firndeel lii lu garaaw la ci réew mi. te nag dafa mel ni bàyyiwul benn ministère parce que boo xoolee rapport cour des comptes bi neuf ministères le concerné te ministère yi nga xam ne ñoom la ñu yaakaaroon ni ñoom war nekk ci ci ci ci kanam ci xeex bi ñuy xeex bi parce que ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi ci moom mii nga xam ne yor santé ak action sociale ak hygiène publique moom mi nga xam ne wara war a hôpital ba médecins yi nga xam ne lu ne daj nañ ko ci jamono jooju te amuñu blouse amuñu masque amuñu gant ñenn ci ñoom sax mujj jël feebar bi ñenn ci ñoom seen bakkan rot ci ministère bi waroon toppatoo loolu ñu ne bokk na ci ministère de la fonction publique bokk na ci ministère de l'urbanisme et de l'habitat bokk na ci ministère du commerce euh, de la petite et moyenne entreprise bokk na ci ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire nga xamné ñi nga yor euh, euh, acteur privé ministère ministère de la des mines et de la géologie ministère du développement communautaire et équité territoriale bokku ministère des sports bokku ministère du développement industriel et des petites et moyennes nga moo waroon fexe ba yenn entreprise yu ndaw ndawaan yi industrie du ñu daanu bokk na ci kon lii boo ko génnee ci gouvernement bi lan moo ci des lii nag li muy firndeel mooy responsabilité benn nit la benn jëmm muy président Macky Sall lii du guleet senegal de mbokk yi xanaa kay li mu tombel muy jaarale jaare ci xeex feebar boo xam ne jaaxaloon na ñëpp ba kenn ku ne am lu mu bàyyi ci boppam ba ñun ñi nga xam ne ku jéggi la ñu nekk te ñepp xam nañ ni andu ñok président Macky Sall te kenn lo nit dañu dem palais tok ak président Macky Sall wax ak mom waye biñu jéki seen yi lii dafa laaj ñun ñepp ñu am nañu jëlale daal di jital intérêt réew mi dañu bàyyi suñu lepp dem palais waye ma ngi leen fatali ni bima génné ci palais wéetoon na torop ci ñi taxawon ci palais bi daal di wax ni alal gi nañu fexe ba bu mu mel ni alal ga daan toppatoo ci réew mi ay détournement ay surfacturation ay dépenses yu bokkul ak liñ ko liñ liñ ci jublu woon ak ay dépenses yoo xam ne buñ la laajee ana justification doo ko mën a andi ñun dañ cee teel a àddu de ndax magu waxoon nañ ko lañ duñu magu xamoon nañ ko moo tax ñu teel cee àddu mu am ñu ne woon sax ah moom de fu mu dem rek wane fa ay politique yooyu waaye lii la gisoon histoire jox nañu ba tax nak ñi wax du ci Sénégal Cour des comptes yagna déposer rapport OFNAC kérok bi président OFNAC bi di génn néna lu mat 40 rapport yo table procureur procureur déposer rapport CENTIF yagna na déposer rapport inspection générale d'État yagna na déposer rapport waaye moom Macky Sall moo ciy teg tànkam li gën a garaaw mooy nit bu luubal ba ñu jàpp ko gis nañ fi nit bu luubal ba ñu jàpp ko of nag def rapport ne mi ngi demande procureur mu ubbi enquête judiciaire pour escroquerie à station de malfaiteur ci lu mat 94 milliards yoo xam ne ñu ngi ko fi doon coow Macky dëgg ci tànkam ba pare jël ñooñu fal leen kon lii Sénégal dama bëgg xam ne lii Macky Sall mooy parrain bi moom mooy encourager nit ñi ne leen jox naa leen responsabilité jël leen pour mun a dem politiquel ma pour mun a dem jënd sénégale ñu woteel ma lu leen ci fekk dinaa ko gérer moo tax kuñ ci jàppit du mujj fen trafic billet am na fi faux billet am na fi jaay drogue am na fi léegi lii ñëw ñooñu ñëpp tey non seulement dara da fekku leen ci waaye ñi ngi dox seen dox tranquillement li gën a garaaw mooy dañ leen di jox ay ay poste dañ leen di jox promotion kon ben responsable mo am ci li moy Macky Sall té liñu ñu def moy nëpp nëppal affaire yi ci loolu la ñu nekk de dégg ngeen kérok ministre des finances né na ngeen ko wolu ndax dinañ jël rapport bi jox ko chancelier muy ministre de la justice mom mu yëg ko ko procureur ñaata rapport la jox chancelier ñun recensé nañ lu mat 50 scandale yo xamné amna fi digënté bi Macky Sall di toog ak légui ñu ko bloqué digënté ministre de la justice ak procureur kon dañuy fexé ba suulaat nepp neppal mbir mi wala ñu fexé ba jël ay nit yo xamné ñom second couteau lañ moy dañ leen di def rek ñi def Wa daaj ak comptable yi waaye fexe ba ministre yi nga xamné ñom ñoy ndey ndeyu gi ñu tegg ñu fexé ba écarté leen ci responsabilité mbir mi lolu yag na fi ta xam nañ ko ñuy wax nak wa Sénégal nun de dañoo bëgg ñu woné ni bëgg nañ suñu bop parce que bu len léré ni këpp alal gi nekk ci réew mi buñ ko xayma woon yëpp ay milliers de milliards la loolu rek mënoon na régler xëyu ndaw gi loolu rek mënoon na régler paj mi loolu rek mënoon na régler mbayu ndëkk bi loolu rek mënoon na régler tali yi ndox mi courant bi loolu rek mënoon na régler lépp loo xam ne ñu ngi koy jooytu fii la ñuy këpp mu waroon dem ci lii ñu jaarale ko feneen ay nit yor ci ay milliards denc seen xaalis ci ay banque fële ci réew tugal yi tabax seeni immeuble biir Sénégal ci alal goo xam ne alalu mbo mbooloo la buñ ko réglé woon rek tey kenn dootul toog di joytu yenn yi waaye askan wi moo mën a réglé loolu boppam moo tax ñu wax ni askan gi la gën a saytu alalam moo la ëpp développement mbokk yi tubaab yi dañoo ñu raw foofu ci bépp fànn nag su dee ci mbirum àdduna waaye gis ngeen ni barki démb rek kenn ci député européen yi dafa dem Qatar ñu may ko fa xaalis bu dul jeex du xaalisu Europe de du xaalisu réewam du xaalisu continent am dafa dem feneen ñoo ñu may ko xaalis waaye tey biñ ko découvrir ma nga ca kaso ba moom ak ñi ma àndaloon yépp ku la gën a euh, farlu ci saytu alalu réewam ku la gën a fartu farlu ci bañ lenn ci sénégalais yi rek nga xam ne matuñu sax zéro virgule zéro zéro pour cent ak kii moo alalu réew mi kooku moo la gën a développé parce que alal googu buñ ko saytoo ni ñu ko war a saytoo mooy dem fi mu war a dem c'est-à-dire ci askan bi moo tax dafa jot nag bii waruñu koo bàyyi mu romb bii suñ ko seetaanee nañu xam ni lu ko neex na def ci réew mi bu fi kenn jooytootu loolu moo tax ñun ñu woote du mbirum politique du mbirum Ousmane Sonko du mbirum Yewwi Askan Wi du mbirum société civile bi waaye mbirum sénégalais yi la comme nag yàlla daf ñoo nattu ñu jiitu am lu ñu woote suñu digganteek sénégalais yi gëm loolu it ndax xeex yorin gu ñaaw gi ñuy yor réew mi ñëpp dañ ñu ci ràññee bi ñu duggee ci politique ba léegi loolu lañ ñu gën a ràññee moo xam ci communication moo xam ci assemblée nationale moo xam ci lépp li ñuy def xeex nañ ci pétrole bi bind nañ ci ay livres xeex nañ ci détournement xaalis bi xeex nañ ci li ñuy def ci suuf si kon ñun lii du guléet waaye dañuy jàpp ni mbir mu askan wi yépp la nag moo tax suñu wootee wootewuñu ngir ñun dañoo woote pour askan wi nañu fexe bu bii bu mu romb moo tax ñu woote am programme bu ñu tëral programme ba ba ca jiitu mooy le 30 décembre suñu mbokk société civile yi nga xam ne politique laajuñu réew mi ñu laajuñu mairie ñu assemblée nationale waaye réew mi rek moo leen ñor ñoo woote ne lii duñu bàyyi mu romb ñuy wax képp kuy sénégalais te fekke ko te mën ko te tal ko ak foo munti nekk ci Sénégal góor góorlu nga dem ci ndaje moomu parce que bu ndaje bi réussire message bu fort la ñuy envoyé Macky Sall waaye bu la ndaje bi échoué ñoom dañuy gën a am fitne comme askan wi yéegalu yaramam lii xew lañu continuer wéyal li ñu wéyal ñaareel bi mooy woote nañu li ñuy tuddee concert de casserole nga xam ne def nañ ko fi ñaari yoon ci at wi mooy jëm jumtukaay boo xam ne wax ak Macky Sall la ci anam goo xam ne war naa mun a yomb sénégalais bu ne waaye muy jur résultat boo xam ne ëpp na beneen résultat boo xalaat muy communication bu am solo bo xamné xalé bu am 10 ans sax mën na wax def ba mag mu am 95 ans te bu du génn kërëm day taxaw ci terrasse am wala mu taxaw ci buntu kërëm wala mu taxaw ci ëttam aduna yépp di dégg ni Sénégal am na lu ñu naqari ci ni ñu yoré seen réew ak ni ñu yoré seen alalu réew ñettel bi mooy beneen rassemblement boo xam ne woote nañ ko le 6 janvier muy rassemblement bu mag a li am solo mooy lii du guléet fàttaliku leen bi ñu waxee affaire pétrole maa ci njëkk a bind ab téere ñu ciy wax di ci wax di ci wax ba benn tele tugal bu ñuy wax BBC bind ci ab article ca lañu ñu doog a jóg nag commencé fi ay manifestation waaye dañ naan Sénégal sénégalais départ la am waaye amul arrivé mën na xeex waaye munu mënu koo yàggal tey dañuy gis ay réew yoo xam ne dañoo am gëm-gëm di xeex ay ati at ay weeri weer gis nañ di xew Iran gis nañ di xew feneen ak feneen laajuñu ñu yi sacrifice bu toll noonu waaye dafa jot ñu defaraat suñu réew mi ndax coono gi sénégalais yi du netti na te dara waralu ko lu dul yorin gu ñaaw gu ñu yor réew mi li tax nag le 31 décembre am na ñu bëgg a wax naan waaw li tax ñuy woote 31 décembre nga xam ne date républicaine la président war a wax ak askan wi kon waruñu def lii mbokk yi est-ce que président la Macky Sall respecté na république est-ce que bu respecté woon république lii muy doxal ci réew mi dina ko doxal moom moo njëkk a jalgati république ci tëj jaay doole utiliser justice di dal ci kaw nit ñi utiliser gendarmerie di dal ci kaw nit ñi di ngemb ñu luubal alal réew mi non seulement dara len dal waye da leen jox promotion ñu gëna am doole gëna mëna mën a leur alal réew mi est-ce que républicain la est-ce que respecté na république bi ñu japp ni nak comme date république bi la république bi moy kan moy citoyen sénégalais citoyen sénégalais yi nga xamné ñoy république bi ñoom it ñoo wara wax ak Macky Sall ñoo envoyer un message ci date républicaine bi ren ji moy doon fukkeelu yon ak ben bu Macky Sall di wax ak sénégalais ci 31 décembre mu dese ko benn rek muy bu daaw bu bu déwén incha allah mu abal ñu réew mi ren ji mooy fukkeel yoon ak benn est-ce que Macky Sall li mu diggee woon ak yéen waa askan wi ci fukki at ak benn yooyu est-ce que Macky Sall respecté na ko kenn ku ci yéen mën na koo tontu moo tax la ñuy li ñuy def 31 décembre bu koo def diggante. vingt heures ba vingt heures trente léeg li ñuy def noonu muy concert de casserole askan wi mooy wax ci datu républicaine ak président la république ne ko kontaanuñu ci ni ngay ni ngay doxalee réew mi te dañoo bëgg mu jeex fii rek askan wi amul possibilité di def loolu li fi nekk du fi jóge looloo tax ñu choisir date boobu kenn gënuñoo nekk républicain ndax li ñuy xee xeexuñu ko ngir suñu bopp de république bi moo tax ñu koy xeex république bi moo araamal ñu luubal alal réew mi république bi moo araamal ñu gannaaw bu ñu luubalee alal réew mi ñu ne dara du ci tegu kon république boobu mooy wax ak président Macky Sall du Ousmane Sonko du du du benn leader politique du benn leader société civile waaye askan wi république bi mooy wax ak Macky Sall lii rek doyoon na ci. ñu def ko waaye boo ci boolee ñaar yi nga xam ne lu am solo la mooy ni ñuy jëfandikoo justice pour di tëj ay gor di leen métital kaaw Pape Alé ngi fi tey am na ñaar fukk ak ñaar ci ay ndaw senegal yoo xam ne defuñu dara lu dul wax seen xalaat ci internet wala ci rajo wala ci tele ñu jël leen ne leen rëpp ci kaso bi boobu jamono ay ñu doon jaay drogue ak ñu doon defar foo yéeg ñu doon defar léegi lii ñu ngi ci mbedd mi di dox ñaareel bi nga xam ne war nañu tax ñu génn ak ñu manifester ba Macky Sall xam ne kontaanuñu mooy njëg yi mbokk yi Sénégal yi sonn nañu lu doon jar fukk démb tey mi ngi jaar juróom fukk kon ñu ngi woo Sénégalais yépp ñu xam ni ñun ñoo mën a dooleel suñu bopp te saa suñu néewalee suñu bopp rek dooleel nañu Macky Sall ci loo xam ne luy gaañ réew mi la kon le 31 bëgg nañu fu waay nekk ci senegal waa àdduna yëpp dégg ni manifeste nga ni am nga lu la naqari ci ni ñu yoree Sénégal ni ko Macky Sall yoree ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox di daje ci événement yi nga xam ne tudd nañ ko léegi asalaamaaleykum wa rahmatullah